jaajëfal alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara xam ngeen ne tey incha allah mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy wax élèves yi ak étudiants yi wala bokk élèves yi ñu dellu ci néegu jàngu yi daara ji moom bëroon na waaye weddi woon na ñoom ñépp nag ñoo fas yéene xëy dellu ci néegu jàngu yi élève école yi te élèves yi jëm ci walla njàng mu kawe mi ci njàngum tubaab ndax njàng mu kawe ci njàngum araab wala alxuraan am na njàng mu kaw bi ci njàngum tubaab ñu jël ko jox ko benn ministre bu ñu wax Mary Teuw ñaan <clears throat> yal na yàlla jàppale ko njàngale mu suufe mi ñu jël ko jox ko sëriñ mbay Thiam yal na yàlla yokk ko wér ñaari jàng yooyu lañ wax ne ci réew mi ñooy njàngum tubaab <clears throat> tey la gone yi di dellu ca barab yañ daan jànge fekk fa ay jàngalekat ci njàng mu suufe mi ay jàngalekat ci njàng mu kawe mi parents yi jël seen doom nàbb ca loxo ba yóbbu ñenn ña dellul seen bopp ndax ñoom ca njàng mu kawe ma ca njàngam tubaab ca lañu nekk xam naa jar nay def précision boo ne njàng mu kawe mi teg ca njàngum tubaab mu kawe mi ndax réew mi am na njàng mu kawe mu wax njàngum daara waaw ndegam gëntu kawe ci njàng yi ndax iqra wa rabbuka al akram moo tax <coughs> gone yooyu ñuy joxe kenn ku ci ne ba nga ŋàbbee ci sa loxol doom danga bëgg bu programme am jeexee ñu jox la gone gu mel nangam defe naa ni soo seetloo suñu programme mu njàngum réew ci njàngum tubaab mooy former benn citoyen benn citoyen boo xam ne bi muy nekk gone xam na lu di lu di citoyenneté su fekkee noonu la professeur bi muy nekk mag xam na ko bi mu tollee ci walla war jëriñum réewam xam na ko kilifa yi nekk cim réewam xam na leen néegu attekaay yeeg pajukaay yeeg yooyu xam na leen digganteem ak waajur yi nga xam ne ginnaaw yàlla ak sosoom ci ñoom la jaar xam na leen yooyu yépp ñu mooñ ko ci moom jàngal ko ko ci njàng mii nga xam ne moom lay jàng su ñu demee ci njàng mi ñu tudde njàng mu kawe ñu boole ca njàng ma jàngal gone yi xam-xamu liggéey xam liggéey peut-être xam-xamu technologie walla peut-être yu mel noonu nga xam ne koo bàyyi mu mën a demal boppam kon école la ngi ubbi waaye soo delloo ci ni sunu borom subhaanahu wa taala rëdde àdduna bëgg na ku jàng lool moom sunu borom waaye bu sañoon kuy jàng dangay jàng bismihi bismihi <clears throat> ndax kim jàngaloon te àdduna gisagul ku ko raw àdduna gisagul ku ko gën a yaru àdduna gisagul ku ko dàq jàngale àdduna gisagul ku ko dàq yar mu ngi tuddoon Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wa sallam kere bi ko yàllay jàngal njàng moomu mu jàng baraw ñépp jàngalekat yépp war nañu roy ci loolu ndax borom subhaanahu wa dafa yebal ci moom benn professeur professeur Jibril xam naa tuuti kon maa ñu niroo professeur ndax man suma bas professeur Jibi la moom boromam professeur Jibril damaa defe dañoo dagg R bi ak I bi ak L bi waaye xam naa aw turandum la wala sëywu fa professeur boobu ko mën a jàngale la professeur Jibril alayhi salaam fekk ko ca ca école ca école ba bu dee ci nun nag nga ne mu fekk ko ca daara ja benn élève dong waaw benn élève dong mu fekk ko ca daara ja ndeysaan cours du soir ne ko waaw iqra foofu la njàng ma tàmbalee waaw iqra danaa koy wax euh, professeur Sadakan bi nekk 2STV yi tey indi livre yi foofu li gaa yi bind léeg-léeg nga seetaan kook benn bindkat waaw professeur Sada di ko laaj ay laaj loolu mu koy laaj lu ñu ngi ko tuddee lecture professeur Sada day day lire livre ba pare am lecture livre bi ba noppi nag di ko ci posé ay question pastel la nga fa wax yal na yàlla sàmm ko mu tax am njàng adduna si yépp njàng xeraa bokkut ak njàngu taallum jibril ñëw ko ne ko i'lam waxu ko loolu def na ko iqra iqra iqra mooy lépp lu dox ci adduna si na am na ci am lecture bu wér alqiraa nga xam ne loolu nit mën naa ñàkk firi ji ba noppi am lecture nangam waaw nit mën naa ñàkk firi ji ba noppi am lecture ci li muy def mu tax doomu aadama xiraa am mooy doxal xam-xamam ci àdduna walla la ci ëpp waaye du taalim ci boppam waaw ndax deux plus deux égale quatre aw yoon la pour àgg ci quatre waaye un plus un plus un plus un égale quatre aw yoon la wu àgg ca résultat wu quatre waaye yoon wee gudd nag un plus un plus un plus un li nga wax dafa bëri waaye ba noonu deux plus deux égale quatre da nga àgg wala trois plus un danga àgg wala un plus trois ila axiri yoon ñi ci jëm bari na ñu nag sunum réew tubaab bi daf noon nax ba yoon yi jëm ca euh, égal kat ñu jàpp ne wenn yoon képp la nu bëgg a jaar ci yoon woowa moo tax ñu yàgg ci yoon wi te mu yeex ndax nu danoo defe ne da naan un plus un plus un plus un plus zéro plus zéro égal quatre yoon wi dafa yàgg-yàgg moo tax sunum njàng yàgg lool waaw te te sakkanut ala xaal njàng léegi noonu iqra la ko sunu borom wax nga xam ne dina am lecture yi dox ci àdduna si moo tax sunu borom jàng tàmbalee ko ci su fekkee da bëgg lecture bi sakkan da nga koy def bismi rabbika iqra bismi rabbika allahu akbar waaw yàlla ne ko boole ma ci waaw boole ma ci wala jox ma lépp sama mbokk ma oustaz Alioune Guèye ca cene ba rahimahullahu wa radi anhu moo daan wax ne bu nit ki jàngee bu ñu iqra bismi rabbika baatu rabb ñu ne ko ha mu ne mooy baatu tarbiya waaw baatu tarbiya kon xiraa ama dafa ànd ak tarbiya waaw ñun fii dañuy wax ne ministre de l'éducation éducation nationale ministre bi war a yor bi war a yar xale yi noonu lañ ko tuddee ministre bi war a yar xale yi allahu akbar kee ñu dina ko ministre de l'enseignement supérieur ministre bi yor njàng moo kawe <laughs> xam naa yéen ñaar moom ctt kii ñu ne ko yaa yor éducation nationale gone yëpp yaa leen war a waaw moom la sëriñ Mbay Caam yor gone yëpp yaa leen war a yar ñi ñu yar ci pinc mi yépp yaa leen war a yar ñëpp nag si xam naa baat bi bu ñu ko firi woon éducation nationale daar yi sax a ngi ci biir donte duñ gis kenn ndeysaan yàlla na yàlla yërëm leen waaw daar yi sax a ngi ci biir waaw parce que national lañu wax éducation nationale daara yi sax a ngi ci biir ndeysaan daara yi yelwaan daar yi yelwaanut internat yi yëpp ñu ngi ci biir ci ministère boobu waaw <laughs> xaw ma nag dugal nañ leen wala dugañu dugaluñu leen waaye daal ñoom ñépp ñu ngi ci biir toog nag di xaar ndeysaan kon éducation boobu moo indi baatu rabbika a rabbu rabba yarubbu rabaa yarbu rabbiya yarba yarbu waaw tarbiya waaw gaa yi ñoo koy tasrifi noonu tabarkàlla ustaas yi kon bu njàng moomu iqra bismi rabbika kon njàng daa war a ànd akub yar njàng daa war a ànd akub yar ab yar nag dana laaj xale bi am royukaay waaye dana laaj léeg-léeg bàcc bàccal bàcc bàccal mooy yor ab yar bu safut te koo ko bàcc mu tiit waaw yar bu safut te koo ko bàcc mu tiit njàng mi nag boo jëlee parents yi jël mbedd mi jël xale yuy jàng jël jàngalekat yi loolu mooy am njàng ñoom ñépp ñoo bokk am ay responsabilités yoo xam ne boo ëllëgee sunu borom dina leen ko laaj ba tàmbalee ci jàngalekat yi ab jàngalekat bëgg nañu mu am xam-xamu jàngale am aaru jàngale pédagogie waaw ba noppi bëgg li muy def ba noppi bëgg li muy def loolu lañ bëgg ci jàngalekat ab jàngalekat day bëgg li muy def day am aaru jàngale waaw waxoon nañ ko ca waxtaan yële weesu soxna njinde mooy bi jibril ñëwee di jàngal yonent bi alayhi salaam daf ko jàngalaale nu ñuy jàngale hmm? waaw dafa ñëw ne ko jàngalekat yi nanu roy ci suuratu alxiyaama sootul xiyaama sunu borom dafa wax yonent bi ne ko laa tuharrik bihi bihi lisaanaka li taajala bi yow jàngalekat bi bul toog rek di répéter ay baat xale yi di wax ngir yàkkamti ñu mokkal ko ngir ñu këru ko laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi mën hmm? a ko bul def noonu borom jàngalekat muy jàngal gone naan alam taara kay fa faala rabbuka xale yi di ko baamtu bu yow nga nangu sa doom <laughs> ngeen baal yow nga nangu sa doom waaye ne ci école bi tam dégg xale yi di eh, di répété jàngalekat bi naan la case de Brahma xale yi ne la case de Brahma mu ne brûle ñu ne brûle bu yow nga nangu sa doom laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi ñu ne ñu ne alxuraan nu nu jàngalee mu ne waaw kay inna alayna jam'ahu ci inna alayna bi ngay def mu ne mu ne inna alayna jam'ahu mooy bind leçon bu ndaw liir ko yow ci sa bopp benn yoon liir ko ñaar yoon liir ko ñetti yoon waaw wax xale yi ñoom ñëpp ñu liirandoo ko waaye ci seen xel ne cell ku ci ne nga jàpp ne war na koo mën a liir ñetti yoon comme yow nga door a laaj nag kan moo man moo tax wa quraanahu inna alaynaa jam'ahu mu teg ca wa quraanahu nga liir ko fa isaa qara'naahu fattabi quraana thumma inna alaynaa bayaana nga door a leeral leçon bi ak ci ak yépp ci wàllu jàngale di san kon jàngalekat ko war a nekk ko pédagogue benn ñaar ba mu mu am mu am aaru jàngale bëgg li muy def maanaam bëgg li muy def mooy tax mu mën a toxal xam-xam min sadrihi min al kitaab min a sabura ila sadril atfaali bëgg li ngay def mooy tax nga mën a jëlee xam-xam ci livre def ci sa xol jële ko ci sa xol def ci table bi jële ko ci table bi def ko ci xolu xale yi ñu dem ñibbi waaw waaw loolu rek kay tax nga mën ko loolu nag pédagogie la bu am solo boo xam ne sunu borom ne na daf koy maye waaw comme ko may rek am nga lu dul jeex mukk waaw lu sa xam-xam tuuti tuuti mën ngaa jàngale juróom juróom fukki at ak juróom-ñett ba te doo jeexal dangay ngay gën di yokk waaw waman yu'tal xikma faqad uutiya xayran kathira loolu la sunu borom wax subhaanahu wa taala kon yéen jàngalekat yi yéen ñiy ŋàbbu doom yi yët leen ña nekk privé ña nekk public réew maa ngi séentu ci yéen ngeen formeel leen gone yi bañ mel ni mag ñi buñ melut ni magu démmit mel ni magi magi tey yi ña ca nekk ay tànnéef waaw bu gone yi nel ni magi démb mel ni tànnéefi magi tey yi yéen lañ yaakaar ci yéen yéen jàngalekat yi ngeen formel ñu ay gone yoo xam ne dootuñu taalipanu duñ toj kaar dootuñu ñàkke teggin mag dootuñu ñàkke teggin mag du jigéen du góor ngeen formel ñu gone yoo xam ne dañu xam luy drapeau réew mi ba buñ ko ŋàbboon nga cor leen mbaa nga dóor leenu xeer buñ dee daanu yi drapeau ba du daanu waaw na ko gone ga defoon ca muuta di saan jaafar ngeen formel ñu ay gone yoo xam ne danañu xam lan mooy assemblée nationale cim réew ngeen formel ñu gone yi bañ xam lan mooy justice cim réew waaw ngeen formel ñu gone ba ñu xam lan mooy république ci boppam ak kiñ teg ci bopp république bi tudd ko président de la république xale yi xam leen ngeen formel ñu xale yi ba ñu xam kan mooy directeur u école kan mooy professeur kan mooy jàngalekat ngeen formel ñu xale yi ba ñu mën a romb luñ moomu te duñ ko jël yaru ba mel ni jàppane ngeen formel ñu xale yi ba kenn dootu romb luy yàqu te defaroo ko door a jàll waaw na ko xadir def woon keroog ba mu àndeek Muusa waaw ba agsi ca dëkk ba ñaan leen añ ñu bañ ñu ñaan leen ndox ñu bañ ñu ñaan leen fu ñu yendu ñu bañ ñu romb fa lu normalut ñu normaliser ko door a jàll ba Moussa sax dafa jaaxle keroog ne ko law sieta <laughs> ne ko law gi ne ko noonu loolu taxu noo jóg waaw góor ga ne ko lu xadir ne ko loolu taxu noo jóg law sieta la taxasta alayhi ajra xaala hada firaaxu bayni wa baynika tey la ñuy tàqali ko yéen jàngalekat yi ci yéen lañu séentu bu gone gi noppee ci yéen maanaam bu gone gi noppee ci sëriñ bay Caam di dugg ci loxoy Mary Teuw ñaan gone gi yóbbaale yóbbal yi agsi ci loxol Mary Teuw Niane moom moom ngi ak jàngalekatam ay professeur am ak ñi mel ni ñoom ñu jàngalal ñu gone yi ba bu ñu génnee kenn ku ci nekk mën a nekk li nga nekk yow mbaam mu nekk lu ko raw ku ci nekk ku ci nekk ministre mu yëg ne liñ ko dénk réew mépp ko bokk ànd dénk ko ko ku ci nekk ku ci nekk ëllëg ab député ku ci nekk ëllëg ak gouverneur préfet wala sous préfet fekk bi muy jóge ci éducation national ci damay misaal bay ñëw ci enseignement supérieur fekk nu formé ko formation wu mu mu xam li xew ko defee ñu def ci moom wa amilu saalihaati def lu baax te doo ci bëgg payug tey def lu baax te doo ci bëgg pay gu teew loolu la xale yi di defi tey ñeenti fan ci weer bi ñu dellu ci seen classe yi am na ñoo xam ne bu ñu delloo danañ dellu balaa yàgg ñu tàmbalee jàng waaye am na ñoo xam ne ba moytul danañ am nangami fan door a mën a jàng ndax nun sunu penc ni muy mel ci wàllu jàng ni ñuy waajale ubbital école léeg-léeg day jàmp dafa am yoo xam ne ni dañ koy waajal bu yàgg bu école ubbee maanaam bu école tëjee waruñoo toog lu mat aw weer te tàmbali ñoo waajal ubbital école waxtaan ak syndicaliste yi waxtaan ak jàngalekat yi waxtaan ak ñi jiite njàng mi ñëpp ànd ci benn baat ñëpp ànd ci benn tërëlin ñëpp d'accord ca ñu doxal loolee njàng mi ne dégg waaye buñ ko tàmbalee dank fanaanal yi tàmbali bu ngeen defut nàngam duñ ko def yéen a waxoon dangeen def nàngam ña waxoon ne daañ def nàngam ñoom tam waroon na def loolu defuñu ko dama na njàng mi xajam léeg-léeg daf cee am te xajam-xajam yooyu baaxul ci nun baaxul ci jàngalekat yi baaxul ci réew mi déedéet ndax am réew gone ya fay jàngale dañoo war am niveau niveau yi nag li koy yéegal ak li koy wàcceel jàngalekat yi la jàngalekat yi ñoom tam bu fekkee niveau yooyu rëcc na rek boo moytuwul léeg-léeg penc bi nga gis kuñ fi jox loo xam ne dañ ko ko jox waaye yeyoowu ko te yonent bi ne lu àdduna ju tukki la jox nit lu mu ñu ne ko amu ah, ne àdduna ju tukki la fantasiri saa àdduna tukki la wax na dëgg jox nit lu mu yeyoowut fekk jenn waa jox xam ne papaam docteur la papaam docteur la moom mécanicien la waaw papa ji faatu ñu jël ko moom mécanicien boobu teg ko Euh, palaasu su jox ko bulu sa ki sisu ku xam li xew boo moytul da ko moytoog sa doom wala sa sa mbokk ndax kooku euh, comme mécanicien la loolu lay gën a man ci yi nit ndax moteur bi nekk nit <laughs> mécanicien bi ab ab ab lay doon waaye du doon ab mécanicien bi defar oto yi kon nag nu waajal gone yi ñaanal leen teg leen ci yoonu jàngi waaye na leen mbedd mi dimbale na leen mbedd mi dimbale waaw loola Lamine Diack daan wax waaw yal na ko yàlla yokk wér mu ne su su su kër geeg mbedd meeg école bi bokkee lu ñu bëgg lu ñuy bañ yar gone gi yomb école bi mbedd mi kër gi nee ba ci terrain bi nee na su boobaa yar gone gi yomb waaw waaw pénc mi jàpp ci yomb waaye bu fekkee li kër gi bañ mbedd mi nangu na ko li mbedd mi bañ école nangu na ko li école di bañ kër ga nangu na ko li kër gay bañ tere nangu na ko yooyu gone gi ci boppam day tàmbalee jaaxle lu tax ñuy tere lii te sama yaay di ko def waaw danay dal gone nga ñëw ci école bi ñu jàngale loo xam ne dañ naan la baaxut nga si fekk sa yaay du ko def bu fekkee sa yaay daa mel ni nogay nga ne ko yaay naa nga mu leen dimbale ma man baatu dimbali ma jooju da nga yëg ne kon kon maître bi moo xamut waaye sama yaay mii xam na jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defem seen rajo yàlla nañ dugg ci atum njàng ci jàmm génn ci ci jàmm xale yi jàng yépp am xam-xam te am fitu jëfe seen xam njàng mi am résultat baj-baj yeeg ñol-ñol ji wàññi ko lool wala mu jeex tàkk suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni i kayit bëgg la na firiñ fàncel xibaar ci tubaab firiñ fàncel leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara gannaaw da doon ci waxtaan mooy de seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi